ndax xam nañu ne li ngay def defaloo ko sa bopp jaam nga koy defal sëñ Tuuba nga koy defal ak ñi nga xamante ni yëpp dinañ jóge fu fii fekk si fekk fii liggéey bi nga xamante ni moom nga moom ci dëkk bi kon fi ma tàmbalee rek laa jeexal mooy ñaan yàlla li nga xamante dara teew ko may la wér gu yaram bu sax dëkk guddal fan yi lool bi li nga xamante ne suma nga ko nga eggale ko jàmm ci alhamdulilah rabil alamin ndax xam nañu ne ci bismillahi rahmaani rahim nga ko tàmbali asalaamaaleykum wa rahmatullah